parce que tey jii y a des intervalles bu déparé tey 15 minutes après la benn oto war dépassé wet war dépassé ginnaaw. waruñu départ mais chauffeurs yi ñoo jël ñoo ñoo def loo xam ne ñu def loo wuñ leen ko en tant que des opérateurs di di def loolu ngay wax ah, di waaw di ray temps suñu déparé te ku ñu jàpp ni dañ lay sanctionné dañ lay verbaliser sanctionné la nga fay. loolu moo wax la ko nga déggoo. nee nañ ma le 60 nee nañ ma le 77 et le 57. waaw lu ñu moo njëkkante yu course yi. 57 mooy dem Rufisque waaw mooy Facebook. bay tuur 77 mooy dem mooy dem fële 77 c'est pas ligne ma mooy dem mooy dem euh, mooy dem euh, dëgg ba comment ça s'appelle encore moom day risque lay dem donc loolu ñun chauffeurs yi sant ñu leen ko te ni lay verbaliser fay loo la parce que am nañ benn kuréel bu dudd Cap Trans moom mooy gérer loolu le réseau. ok donc nous en tant qu'organisation ñun. mais gis oto yi ni muy feesee. on fait mais si oto yi ni muy feesee parce que oto dafa manqué aussi. moo doon ñu mettre en place tey. mais yi di njëkkante dir. ñëpp bus pour parking bi. ok da ngeen parking bi. voilà on a un projet mille bus encore pour renforcer le parc. ba léegi waxagoo ma. changé en même temps les véhicules vétustes yi ngay wax yu màggat yi. yi nga xam ne ñoo duggoon depuis deux mille. bëgg naa bala nga fay jógee nga jox ñu note d'espoir quoi lu war a tax ñu yaakaar. ni affaire yi dina gën a woyof. ah xëy na peut être espoir bi lii la parce que Mhm. moi je ne défends pas le travail je je défends le patronat. ah mais benn la. déedéet c'est pas la même chose. Ah, le syndicaliste défend les travailleurs. dama si patronat bi patronat bi seen kuréel gi syndicat la benn pour faire la médiation. si la médiation ne passe pas on va au tribunal. mais mais.